asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah join 8 juin 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooreti ko tey yëglikaay ba nag tey moom daa xëy localiser ñu wala ñu mu wëral ñu mbër moo xam ne daal bañ ko gëj gis ci lamb yàgg na ba sax ñu nga doon laajte moom fu mu féete ak fu mu ne mu mel ni kii nag Abdoulaye Dembélé moom ci ab gëstum gëstu na ba indil ñu ka nga xam ne moo di Paul Maurice Paul Maurice la populaire Paul Maurice borom bi kol mu mel ni kii nag Paul daal fa ko waaye sunu lamb fekk wala fa ko Dembélé fekk du fenn furul fa nga xam ne moo di ci réewum Mali Paul nag daal fa la nekk léegi waaye Paul day ñëw na ci aw naqar woo xam ne am na ko ci carrière am bi nga xam ne jàpp na ne carrière bu naroon a dem a dem ci kaw a kaw la Paul nag ne na li am des daal carrière am boobu moom fu kaw a kaw la ko si yéene la ko séentoon ngir mu yegg fa bokk na ci nekkoon la nga xam ne moo di roi des arènes waaye itam naru woon caayam te kase yi lamb ja bëggoon mu yegg sax ba ci cinq cent millions jàpp na ne moom tournoi ba nga xam ne mooy kalaf ba ba mu cay dugg la mu yéene woon mooy daan ña fa ne génn seq ak bés ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo ak Eumeu seen moom pol Maurice Tall lii moo nekkoon li nga xam ne nii moom moo di yéeneem waaye mu mel ni kii nag ginnaaw yéene booba rëcc na ko am na weneen yoon woo xam ne jëlati na ko moom Paul moom Paul Maurice yoon wa mu jël du wenn wudul Matar Ba ministre des sports maire Fatick daal la pôle na tey place ba nga xam ne moom la tooge moom la bëgg a jël fi mu nekk nii muy maire ba nga xam ne moom la yor ca Fatick moom pôle daal loola fi mu nekk nii teg na ca su sunu làmb xëy tey andil ñu ko ci gëstoob Abdoulaye Dembélé bu nu fa jógee nun dañuy des ci koo xam ne moom mu ngi ci làmb ji mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii ab laaj les ko sampal maanaam daal Ama Baldé na muy def ba jëlaat couronne ko biir Pikine ginnaaw ba ko fa Mohamed Ndaw Tyson dugalee ñu ne déet dolli ko moom ama nag mu mel ni kon mooy nekk ñetteelu mbër bi koy jongante moo tax yëglikaay bi laaj ndax ama mii armé wu na bokk ngir am la nga xam ne moo di nam ca ko Modou Lo mel ni kii nag daa mel ni kon est ce que loolu ama newu ca ndax ne nañ mooy ki njëkk daan Malick Niang jël bu doy doy waar ñu ne déet ne waay tournoi TNT ba mu bokk nag ñoom tafaati nag ñoom guy geeg ñoom jos ama balde dal di koy lëmbe mu mel ni ki ne côté mystique tamit mbër la moo xam ne mu ci belende la physique tamit am na ko wàllum kuras tamit ba ne ci koy gaynde loolu lépp ama dajale na ko mel ni ki nag yooyu moom daa tax ba yëglikaay bi jàpp ne day wàllu roi des arènes gi moom nañu ko xaar war na ko mën a andiwaat fa nga xam ne mooy ca moom ama keneen koo xam ne nii moom xëy na di wax ay dëggam mel ni ki nag mooy Fallou njaay Fallou daal fi mu nekk nii xëy na ngar daaju nag taxaw nee na li am ba des daal Fallou Ndiaye promoteur ba borom Ndiaye production nee na léegi nag mbir yi dafa doy waa dem la ñu war a def nag bàyyi làmb ji ñi fi nekk daal Fallou daa jàpp ne moom dem dafa jot ngir ñoom ñu dem keneen koo xam ne nii moom wala boog ñaar ñoo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci ñoom muy guy gi ak ka nga xam ne Modou Modou Anta ay temps yu yàgg yàgg yàgg seenoo foto la ñu yëglikaay bi woon photo woo xam ne jamonoy mba pët la ku jege nga xam ne moom la ñu nekkoon ca biir région de Thiès guy gi di doomi cenn ba Modou Anta dëkk mi dina faal mel ni ki nag ñoom ñaar daal laataa muy neex jàppal daan nañ ba mu safa saf sap waaye loo xam ne wax nañ ko sànq muy demuk CNG te ah, nga xam ne moo di Fallou Ndiaye wax mu mel ni ki nag ci gëstu Boubacar Niang daal daa mel ni mbir fi mu nekk nii demu Alioune Sarr daal mel ni mu nga xëj bëgg a xaajale lamb bu ñuy ne lii ña ca des ne lëlee mel ni kon foofa coowa nga fa keneen koo xam ne nii moom ci yoonam la nekkoon waaye daa mel dañ ko freiné muy nees bu lamsaar Dakar yëglikaay bi ñëw na ci moom ak 2017 ba ko Sa Thiès Balla Gaye di freiné moo tax yëglikaay bi jàpp ne day avenir la boo xam ne fi mu nii sampal nañu ko ab laaj ab laaj boog moom mi nga xam ne nii moom di nees ma dëkk fa nga xam ne moo di ca Lansar yëglikaay bi xëy tey ñëw bi na ci moom moom itam daal ku ne xamoon ko ci défendre Pikine moo xam Ama Baldé la wala muy Boy Niang wala ka nga xam ne nii moo di Eumeu Sène muy Pape Sarr Pape nag léegi ab promoteur bu la bëgg doon di tëgg ay lamb ba tax na sax yëglikaay bi xamal nañu day ki nga xam ne moo di Kalmu Ndour grand bandik école Boy Niang daa mel ni Pape pare na ngir utal ko adversaire ngir mu bëre yéeg likaay bi di suñu làmb xëy wax nu loolu dañ fay jóge nun waaxu dugg fa nga xam ne moo di ca record record moom kan fay fekk moo di Abou Ndour ba tey moom itam daal la mu xëy samp ko ci ab laaj mooy Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Bombardier ñi nga xam ne day parce que seen retraite dem na ba pare ñan xale boog wala yan moo tere ñu dem la nga xam ne moo di retraite bu dee boo mën jël itam parce que moom dem na yëglikaay baa xëy tey sam boobu laaj leneen loo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii moom nekk nañ fi ay roi des am na ku ñëw ci ñoom wax ci ñoom muy Papa Sow Papa nag moom ñett la tànnaat tey muy Balla Tyson ak Bombardier bu dee Tyson la Papa Sow daa jàpp ne daal li am ba des moom maanaam daal làmb ji bu doon ak yeesal la moo ko yeesalaat indi ci loo xam ne lu doy doy waar la en tant que roi des arènes moom Mohamed Ndao Tyson waaye Balla Gaye itam moom daa jàpp ne daal moom Balla gay de nekk na ro nekk nekk na roi des arènes boo xam ne daal moom daal bëre moom ci moom la dëppe nee na mu neex la wala mu naqari la Papa Sow ay wax de nee na moom da koo mën ba mu doy doy sëkk sëkk sëkk bu dee Bombardier la moom Papa la ko jaaxal ci moom wala la mu gis ci jàpp ko moom mooy la moo xam ne mental ba foo ko takk weesu na ko nee na donte tamit Yékini jaaxaloon na ko waaye gën Bombardier mental moom Papa daa jàpp ne mante ne ci làmb keneen koo xam ne nii moom ab menacé la dëkk ca Pekin ay affiche la xëy di ko joxe ci record muy Paala Diop reki Pape Diop Boston Paala daal la mu wax ne na Balla ak Boy Niang ne ñaar ñi moom faw ñoom ñaar ñu laale bëre waaye yemu ca de rakki Balla la tànn ak rëg-rëg bu caarooy yi na ñooñ tamit mënuñoo ñàkk laale waaye moom Paala yemu ca ne na seen ak ki nga xam ne moo di Bombardier ne na faw ñu leeral combat revanche Paala Diop wax lu mel ni ki noonu yàgg maar mel ni ki tey la leen di yàgg ñaata la fan la weer wi am tey yàgg jàppal ma ko tey la leen di 8 juin 2020 yàgg maar yaa nga 2020 yàlla nañ fi 2022 fekk ak 2060 te it li ci mën a xew daal mooy yàlla bu mu mel ni 2020 ndax 2020 xaalis amu ci 2020 corona bi bëri na yàgg maar. waaw dafa du loolu sax coono bi moom am na mooy taxu koo bëri noonu quoi moom coono bi des fois duñ ci mais xëy na rek dëkk bi sama waay ak ni mu demee dëkk bi xam nga yaa ma gën a xam daal feebar bi waaw waaw alhamdulilah waaw Babacar di dugg si li nga xam ne nii mooy waxtaan bi daal dem suñu lamb fekk ki nga xam ne nii mooy Paul Maurice suñu nekkoon xam ne nag dañ leen trop trop trop lamb suñu lamb daal koy fekk fële daal di am ak moom waxtaan mu ñëwaat nag ci lu bëri bëri ci carrière am ak li ñu nekk instant bi. xam ne nii aar ak si a a bu sore sori ñu tekki rek gisatuñu ko carrière am taxaw mu mel ni ki nag waa suñu lamb ñu ko leen mu nekk te Mali léegi euh, di fa dund waaw mais nag li mu wax que ni amoon na ambition wu nekk roi des arènes craft bi da génn bëreeg Balla Gaye Eumeu Sène vraiment ku ko gisoon nit ñaa xaar pool fu sore sore sore mais nag xam nga làmb comme li mu wax moom nangul na ko parce que nee na problème encadrement mm. ni kon loolu bokk na ci nga xam ne moom moo gën a téye carrière ba mu indee fi mu ko mi war nga lépp li làmb dajale war ko mën a jàng ba am ci la maanaam lu mu lu li mën a ñàkk mais soo ko manqué xam nga mbër ci bu baax ah dina xaw a jafe trop trop surtout encadrement ndax xeex bi sax moom boo amee encadrement mën nga koy jàng di defar bu gën a dem bu fur et à mesure ngay def affaire yi gën a baax mais encadrement bi mbir mu mën a doon ci làmb waroo ko foyee boo ko manqué rek dama naan muy lekk li nga xam ne nii mën na yàq sax sa carrière loolu moo ko dal ko hmm. dañuy jóge ci Paul Maurice Sarr seeti ki nga xam ne mooy Ama Baldé suñu xamante ne ñëw ci moom di laajte ndax am na arme yi nga xam ne nii moo tax moo tax moo war a tax mu daan ki nga xam ne nii mooy Modou Lô mais itam ñëwaat na ci ki nga xam ne itam jot na ko réalisé parce que moom moo njëkk a daal bi nga xam ne mooy Malick Niang mu nekkoon mbër boo xam ne ñi ko ñeme woon bëriwul mu ñëw tamit dugg ci li nga xam ne ni mooy TNT bi daal di fay am 9 points mooy am 3 combats daal def 3 victoires mun na nag est-ce que kon nag tey est-ce que am na arme yu doy pour jàkkaarloo ñu waaw loolu yëg li kay waxal boppam daa mel dafa samp laaj bu pare tontu boppam ndax bu ne boo laajee ndax am na ay arme yu pour daan Modou Lo nga gis mu daan Malick Niang ba mu koy jël yëpp dañu doon day xaw mu xeex moom daan dugg ci TFP bi TNT bi di moins daan ña fa nekkoon yaa ngi dégg ba jël revanche ci guy tey mu jógee ca bëre ko Papa Sow daanaat ko taxaw ko moom Modou Lo taxaw man dama am bu dee ay arme la ci lu mbër wane bañ ne am na tey bu mu bëree ak Modou Lo bañ jox avance ba lekk avance Modou Lo dama am am na ay moyens yoo xam ne war na ko mën a daan Modou Lo mu réalisé que su yëgle ma lay wan kon Ama am na ay arme yu yu mu teg ngir daan Modou Lo ndax arme ya nag buñ ca yeggee ndax dina ko mën a utiliser pour daan Modou Lo loolu mooy wax ji ndax arme mën nga koo yor bu ñëw ci bisu bés ba ah sa adversaire bu dee ay arme luur la mu indi ay anti arme yi waaw loolu mën na ne loolu lépp dafa jar bàyyi xel diggante mu mu daane kaw boo xam ne nii moom dama naan ñoom ñaar ku ci ne am nga capacité wu daan sa morom mais ci kaw ci kaw nangam ci kaw nangam loolu nag bu combat ba yàlla na fekk mu bañ yegg ca yàlla nañ fekk retal ba génn su ko rek dinañ ci gën a wax suñu xalaat waaye xam naa daal na ci làmb lu tax fi mu nekk nii mu mën a bëri ak a ci làmb ko waaw bay ñu continuer doon mooy guy gi sama ma jëm ci moom la li nga xamante nag guy gi am na ay facettes yu bëri tey jii ni mu capable le meilleur noonu la capable le pire maanaam moom dafa mu def exploit bañ ne guy gi la dafa nag mu wàcc. maanaam daal moo ko déggee ay biram day dem ceeb bi di bay laa doo comprendre waaw loolu nag dafa mel ni man dama naan guy gi am na benn li ko li ko may fi mu yegg si nii dafa naa ne moment yu yu yu yu baax yi am na ci moom bés yu bare bare bare yoo xam ne gañe na ko ci. dama ne ba benn moment nag ñu gis ci moom benn poids boo xam ne dañ ne woon du poids am loolu bokkoon na ci lu ñu mën a jàpp loolu doon na ko di ay difficulté daa mel ni nag boobu daa mel bi muy dem xam ne lii xëy bu du lu war a nekk fexe na ba xeex ak loolu ba loolu tey mu jóge ci ba xëy na amoon na defet ci Boy Niang ak yu mel ni ki noonu bi mu ci jógee ba tey gis nañu mu dikkaat yaa ngi dégg ñàkk diggante ak Ama Baldé xam nga ñàkk fi ak Tapha Tine xam nga bi mu dikkaatee am na lu mu wanewaat parce que ci biir ta pour TNT boobu daan na fa sos yaa ngi dégg retourné waat dikkaat bëriwaat ak ki nga xam ne nii moom mooy Boy Niang suma bi mu door a ñàkk di ñëwaat jël Siteu daan ko te muy daan Siteu ku gis guy gi physiquement mu bëre keroog yi nga xam ne guy gi ma xamoon mu daan bëre mu ñor physiquement mel ni kon moom itam yaakaar naa daal loolu mooy sport des mu yéeg ba ci kaw mais des mu wàcc da ngay xam li koy yëgal ak li koy wàccee pour ngay mën di liggéey waaw waaw waaw ñu dem seeti ki nga xam ne tamit mooy euh, Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye di promoteur moom nag ñëw na daal di toog ci li nga xam ne mooy département bi mais nag euh, waaw doy na waar Fallou daal moom fi mu nekk nii kon moom na gudd loo xam moom moom la ma gis mooy na fi na fi seen seen tur wala bu dul loolu ñoom diwén war nañu mën a boycotté mm. waaw loolu nag dama naan ni ku ne tey boo nekkee ci budget yëngu ba gis ne nii parce que ñoom promoteurs yi ñooy bayeru làmb ndax mosaguñ fee gis ñu ne président de la république mu tëgg làmb ah gisaguñ ko boobu wala boobu man waaw wala wala ministre bi wala naaga li ñuy gis daal mooy promoteurs yi ak ñeneen nit ñooy volonté wu tëgg làmb kon ñoom ñuy tëgg làmb nag am nañ kàddu ci làmb yaa ngi dégg te ni Alioune Sarr na dem waaye euh, na dem yaa ngi dégg am nañ droit ne kat na fi jógee wala boog nañu ñeneen parce que li tax loolu nit ñi di ko wax mooy la ma la mooy nekk rek vingt cinq ans waxuma vingt six ans dafay yàgg ay dëgg yàlla waaye nag li wax waxaat mooy que ni même buy dem wala muy toog lu ci mën a doon na nekk jëriñal làmb yaa ngi dégg ñun promoteurs yi tamit am nañ droit ne kat lii arrangé tuñ baaxul ci am nañ droit boycotté loolu ñoom ne ko seet moo ciy waxtaan ko déggoo ci waaye lu mu ci mën a doon rek nañ fexe ba rek lépp ñu waxtaane ko composante la yëpp ba mbir mi mën a tege ci aw yoon ba ki nga xam ne ni moom jàpp noonu lañ jàpp nañ ne war na jeexal mu jeexal ci jàmm ñi war a continuer continuer lépp doxaat normal quoi ñu dem Babacar Seck Ness Ness tam suñu lamb ñëw ci moment carrière am gëj a bëre ah boobu ba léegi bu ñuy gëjee bëri di constaté sa pataano boobu ba léegi nag euh, Ness nañ ci touche bi amul combat waaw amul combat mu nekk mbir moo xam ne ci lamb la bokk sax xorom lool vraiment nit ñi ko mën a bëre lool Ness waaye nag boo xoolee 2017 bu ni mu ngi taxaw waaye itam yaakaar naa war nañ mën a am adversaire actuellement bëri ndax day itam dégguñ fenn fu mu waxee ne na làmb kon yaakaar naa promoteurs yi war nañu a xool pour ko adversaire mm-hmm. dañuy jógee suñu làmb dem bi nga xam ne ni mooy record ak lu ne ni mooy espoir yi wala dugg ci ne ni si biir góor leen dese a euh, bëreetul noonu tey jii bu ñu waree dem yan xale ñoo war a intégré bu ñu toll nii nag jàpp nañu amaan ci biir booy ñaan ci biir mais def na yeneen xale yoo xam ne ñu ngi lay teg ndax mën nañu intégré biyaay bi. waaw loo gis du ne day euh, tubaab defe naa ne olof yi dañ koy wax moom moo fay nekk dinañ doon ay boo fi jógee ñun mm-hmm. ñoom ñooñu lim muy Eumeu Sène muy Bombardier muy Gris Bordeaux bu ñu ñëw am nañu ci fekkoon ñooñu bàyyi ñu ñëw taxal seen place xanaa tamit bu ñu fi jógee itam seen carrière lamb boog su ba ñu ne ci leneen dina am ñeneen ñu fa mu dëkk ca Pikine dèjà am nañu fa fay muy Ama Baldé tey mu ngay joxante waa des arrêt booy ñaa mu na Gris Bordeaux tamit am na ay rakam ne ci ginnaaw boomul na ñoom itam ñu ngi di ñëw ñu xalaat rek moom mel ni ku ñoom guy gi ay ñoom Sa Thiès xam nga ay Garga Mbossé ay Malick Niang ay ñoom Reug Reug ay Franc ñooñu ñëpp ay xale la ñoo xam ne ay Forza ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi ci yoon di liggéey nañu gën a liggéey la et puis tam te li ma leen di wax mooy nañu nangoo bëri ñoom bëri yooyu il faut ñu nangoo bëri ay ama neex ay Yékini ñoom ñëpp il faut ñu nangu bëri pour ñu gaaw mën a ñëw taxaw fi ñu war a taxaw bu fekkee ne tamit dañ fi nekk di calcul di kii naa temps di dem na dem ba pour ñu taxaw foofu dina xaw a yéex te ñu yéex voilà wala ngay laaj kese yoo xam ne tamit c'est inutile bu kerogee mën na leen fa tey tey bi nga après njëriñ dina bëri quoi si tag ñoom ku ci ne naa ne d'ici quelque temps day gis ñeneen ñoo xam ne dañ taxawaay taxawaay bu gën a garaaw sax bi ñu taxaw waaw ba tey dañuy def ci jeex bi daal di ñëw ci commencé wu nga xam ne ñoo na wax mooy euh, Balla Bombardier ak ñeneen mbir loolu la wax ne na bu dee ki nga xam ne ni mooy Tyson da moom ne na maanaam dafa yeesal xam moom boo xoolee la nit ñi da ko yeesal ci côté mbër nu mu war a comporté ko style bi xaalis bi muy fayee ko kuréel lépp loolu defe naa ne ku na ko Tyson mu nekk mbër boo xam ne ni vraiment respect yi moom la euh, dëppe loolu Sénégal yëpp gis nañ nañ ko moom la Tyson mm-hmm. Balla tamit li ko marqué ci moom ne na mbër la riwaa des armes nga xam ne ni bëree moom dëppoo boole day mm-hmm. maanaam ku mën a na ne daal Balla moom bëree moom foo ko takk weesu la ko ci xel ñëw ci moo bëri dina mu neex la wala na boo xam ne ni maanaam techniquement maanaam macha ma jël tamit daal jàpp ne mental la xam ne ku yooyu ku ci ne nag li mu la yaakaar naa Sénégal yëpp buñ ci yaram ne bu ñu la mental amul ku muy jàkkaarloo bi amul ku muy jàkkaarloo te loolu bokk na si mental bu baax moom nee na Boy Niang Balla Gaye Reug Reug ah, ciy wax boobu ba tey naan dina am na taxaw ñi naan war taxaw ba tey nag ñu ngi ciy wax mu ni combat la boo xam tamit ba gis na ko wala boog am na ñu ko bëgg bu dee Reug Reug Sa Thiès la tamit kasaalika na ko ñaari bëri dama yaakaar ne ba wuñu ñu muy dégg seen wax daa mel bëgg nañoo bëri xëy na bu promoteur tey mën nañu yóbbu Eumeu ak Bombardier moom revanche lay doon parce que Eumeu moo daan Bombardier nekk roi des arènes kon defe a jeexal ak léeg nga xam ne euh, nii mooy Bébé ko jàppoon si waaye ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla génn ah parce que xale la boo xam ne avenir u làmb la niir la ci li muy def kon yaakaar naa daal lu ñu mën a def ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla génn ci li nga xam ne ci la dugg sa nag àddina moo tëdd noonu ay ndox ndox la àndal waaye nag mu mën a doon rek comme ni may wax rek lu am yàlla fekk na ko kon daal encore une fois daal koy ñaanal yàlla daal yàlla génn ko ci li xam ne ci la dugg di leen ñaanal di xam ko ñii di nekk ci àdduna bi la sax ci ñun ñëpp di ko ñaanal ko ci li nga xam di nekk ci moom bi amin yàlla yàlla ñu ñaan di ñuy internet yëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom comme ni nga waxee corona yàlla defal jàmm barke bi sallallahu alayhi wa sallam bañ mën a continuer ak fii normal bi daan dund ñu nuy internet Leewtoo ñu mën a nekk mais du ma fàtte ku nga bu bu bu Lamsar nekk ci France ñu di ay mbër bu ñu xam nga ñoom fëgala ay capitaine PK super jamono ñoom ñëpp ñu ngi à l'étranger ah infra rouge booy bawal ñoom ñëpp ak Ketchup suma doomu ndey <laughs> Ketchup maa ngi lay bégee mais di nuyu xam ne mooy jàll mu di maa de gars yi yëpp maa ngi leen di bëggee daal di nuyu tamit Saliou Khoule sama xarit sama rakk sama waa di nekk nit bu baax di ko ñaanal jàmm daal di wax Sénégal yi ñu fi yàlla jàmm. amiin ba suba ñaan incha allah